commencé ñoo bokk ndey bokk bàyyi ku ci nekk sa tàmpaangi sa bàjjen sa bàyyi sa yaay sa rak sa mag sa kóllëre sa xarit kon ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk ay mbokk rek ñoo fi nekk ak ay xarit ay kóllëre ay am di jàmm fexe jàmm am ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xëcc borom xam-xam ni dañuy wax ne jàmm euh, loo waaye am waaye am te amul jàmm amul rek kon jàmm ci la xëcc bu nit ki di dund dund gi neex jàmm a sooy lekk mu neex jàmm tax sooy dem di dikk mu neex jàmm tax sooy jëflante ak nit mu neex jàmm tax sooy déplacé di dem di ñëw te dara du la fekk jàmm moo tax kon jàmm jooju yàlla ñu ko yàlla defal ci sunu Sénégal waaye ba tey di ñaan foo waay mën a nekk na nga jàng suratu yaasin soo ko mënoon nga jël la xajjaakum eh, ci julli farata bu nekk nga jàng ko benn yoon mu nekk hadiya ñu joxe ko suñu réew mi yonent sallallahu selam wa sallam nee na addu'a silaaxul mu'min ñaan mooy nganaayu jullit te yàlla waxoon nañ ci alquran ne ud'uuni astajib lakum fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani kon nañ delloo mbir ci ñaan yàlla te xam na mbir dana tëdde foo xam ne si wala mu toll foo xam ne si pexe nit du la ca génn say pexe it du la ca génn léeg la cay génn rek mooy nga tàllal sa loxo borom bi mu ñëw ak saafaraam génne la ci yàlla ñu ci yàlla génn ci fitna bi indil ñu jàmm bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ba ñu sori dañuy delloo kàddu gi suñu xarit suñu ko leer ci Abdoulaye mu ziara askan wi waxtaan ak yéen saafonte ak yéen ñu door a ñëw ci waxtaan incha allah alhamdulilah tafadal jërëjëf euh, Oustaz euh, jërëjëf mbokk yi nga xam euh, leen mës a fàtte ndax foofu eh, ñu nekk gënal leen ñu jógee te ñu fi bàyyi alal borom bi daal di ci teg seen loxo ba yéene bi amoon seen njaboot borom bi daal di ko àggale waaye di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoom jafe-jafe àdduna ñi xam ne ñu xamul nga xam ne mooy borom lépp ak fépp xam fépp di ñaan mu yi waaye comme ko waxee di ñaanal jàmm bu sax aussi ku nekk rek eh, nga mën cee sukkandiku ba doxal li nga xam ne moom la ñu bëgg ngir réew mi waaye di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo ngi waajal eh, xew bu màgg bi muy gàmm di ñaanal yàlla yóbbu ñu fa ak jàmm ba lépp loxo xam ne nañ ko fa borom bi daal ñu ko nangul ñu amaat mbégte rek dellusiwaat ci te di la ñaanal nag yàlla may la fan yu gudd ba ngay ànd ñu laayu loo xam ne ci wax rek mu doon indi wa ala kulli xaal dañu dellu si rek ñu koy waxoon euh, balaa ñuy sore ñu fàttali askan wi numéro yi téléphone yi ñu bëgg a ànd ak ñun ci téléphone yi mën nañu jokkoo ak ñun comme ni ñu koy defee ajuma ji nekk ñu ànd ak ñun ci 88 628 09 09 88 628 09 09 dawaa bitim réew ñu ànd ak ñun 00 221 33 869 83 92 00 221 33 869 83 92 ñi bëgg a ànd ak ñun ci waxtaan bi mën nañu jël ko ñun ci euh, numéro yooyu euh, xëy na balaa ñuy sori xam naa ni euh, dañuy fàttali askan wi tuuti rek ci wàllu gàmm maanaam gàmm ak njëriñu gàmm. Euh, damay farataal di wax ni gàmmu mawlidu nabi dafa nekk loo xam ne ni dafa am solo lool ci dundu doomu aadama parce que ki tax ñi defar lépp bu dul woon sayyiduna Muhammad àdduna bi day def ci lëndam te du loon sayyiduna Muhammad du ñu xam li ñu war a xam ci yàlla te du loon sayyiduna Muhammad du ñu jël ci Qur'anul Karim bu dul woon sayyiduna Muhammad kon ba léegi nit ñaa ngi def di jaamu xërëm kal aadati mundu qadimi zaman ci jamono bu njëkk ba nañ ko daan defee waaye nag alhamdulilah suñu Seydina Muhammad ñëwee génne na ci ndëm dugal ñu ci leer génnee ñi ci jaamu xërëm jaamoon ci jamono bu njëkk ba dugal ñu ci siraataan mustaqiman kooku nag amuñu payam waaye damay wax ni toujours euh, guddik Seydina Muhammad def di ci def salaatu ala nabi dafa am solo gis nga juróom-benni waxtu boo ci defee salaatu ala nabi adadu 612 nga def ko salaatu ala nabi ci juróom-benni waxtu muy tombe guddi sayyidina Muhammad sukuraat doo ci sonn muy daw sukuraat doo ci sonn yàlla dina la ko woyofal te it doo dee dee bu ñaaw ma bamtu ko 612 ci juróom-benni waxtu nga di ko def ci ci bésu guddi. Euh, laylatu mawlidin nabi nga def ko ci xaj abdullah doo dee dee bu ñaaw te sukuraat du la sonn kon lu gis ni adadu 612 ci salaatu ala nabi fiihi manfaatun azimatun njëriñ bu bëri muy ci salaatu ala nabi xataa nag dañ cee eh, tibb lool rek waaye am na yeneen ak yeneen ak yeneen waaye balaa ñu sori xayam abdullah dañ lay delloo kàddu bi door a ñëw ak askan wi bismillah. jërëjëf Oustaz kii nag nee na dafay faral di ba jigéen bi rek daal di jox ak xibaar ba tànk bii mosoon na damm daal di dammat lii la doole nañ ko tuuti wàllu seen shukran ya abdullah wa ala kulli xaal damay farataal wax toujours ni bari aana loolu nit di gis euh, accident ci génn fa yaataqid anna al amra kadalik mu nekk yaakaar ne noonu la te fekk na mbir mi tëddeewul noonu waaye balaa ñu ñëw ci mbiru accident bi xëy abdullah ñu jël ki ci ligne bi te ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw su ko defee ñu ñëw ci accident bi xaj Abdoulaye accident nag ci gént du accident góor bu géntee accidenté euh, dafay am li ñuy tuddee ci arab su tafaahum baynahu wa bayna imraatin day am ñàkk déggoo digganteem ak jigéen mu nekk choc bu xaw a tar tuuti diggante góor ak jigéen moom xataa su fekkente ni jigéen moo ko gént day am xat-xat ñàkk déggoo diggante moromam jigéen kon ñu bàyyi xel ne accident ci gént bu dee ci góor day am jafe-jafe ak soxnaam wala yu mel noonu waaye bu dee jigéen nag kazaalika day am ñàkk déggo déggoo diggante moromam jigéen su ko defee ñu bàyyi xel loolu te fexe nga xam ne ci mu gént accident bi mu fexe def li ñuy bëgg a wax mu jël ñaari kilo mburu ma def ko juróom-ñaari dakk mu jox ko ay xale suba teel mu nekk sadaqa lillaahil kariim mu ñaan yàlla bu fekkente ne loolu dafa nar a am wala am na yal na ko ko yàlla saafaral bi jaahi sayyidil wujuud eh, alhamdulilah bisimilah. jërëjëf oustaz Kilab nee na eh, dafa doon am lu mu doon xëccoo kenn yàlla def eh, mu daal di ko jël waaye daal fan yii dafay fekkaat di ci jëmm jooju ñu leneen lay fekk ci wàllu jëmm. shukran ala kulli xaal gis nga ni ci daraam ba yàlla def nga jël ko ngay gént di gis loola tekkiwul ne nag fi nga kooku la waaye day tekki ne. fil mustaqbal li tubaab moom dans l'avenir man nga am ay obstacle yu la sonal ci lii la yàlla man mën nga am ay jafe-jafe yu lay sonal ci avenir nga yor di ko gérer allahu alam bu dee liggéey la wala leneen ak leneen waaye wax rek lu xaal na jàpp ni ci kanam a kanam mën na jànkonte solo solo wala ay obstacle yu ko xaw a sonal lool ci biir loolu mu yor bu laa dafa def te dina ustaas ci léeg rafetal lu bëri diggante rek euh, di di waxu bu dëgg ba ci mu dendal sax moom koy mujj wax di laaj loolu da ngay def ci wàllu boobu. shukran ya Abdoulaye wa ala kulli xaal ñaari mbir dina koy farataal di def dinañ am yenn saa yi nit gis lu ko tiital xawfan min dalika fa yasiixu fi leyl ragal li mu gis allahu alam lan la mu tiit ba yóotu ci guddi gi wala ñu koy dàq mu tiit ba yóotu ci guddi gi wala ñu koy waaj jam dara mu tiit yooxu wala mu gis lu ko tiital mel ni jinne wala yeneen mu tiit yooxu wala boog mu am lu ñuy tudde ci wala mbës mbësaan comme ni ko olof yi di waxee lu lay bës ci lal ba daanaka bu jéggee dayoo bu demee ba dépassé fa mu war a toll loolu nag na ngay daal di tiit nag yooxu mu indil la ay torof torof waaye euh, loolu ku ko bëgg a fànq da ngay farataal booy tëdd nga tëddee njaaxaanaay benn da nga jàng ne ko sama wa taarix fukki ak benn nga boole ko ci nag nga bët ci aaya bi ñu doon joxe alhamdulilah defe naa nit ñi léegi miin nañ ko muy bismillahi rahmaani rahim wali suleymaan reyha guduha shahra wa rawaha wa shahra wa salnaaluha min alxitri wa min aljinni man yaamal bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yazix minhum an amrina nuzix min azabi sain yaamaluun lahu ma yasha min maxaarib wa tamasil wa jifaanin kal jawaab qudurin rasiyat yaamalu ala daawud shukran wa qalil min ibaadi yashakur da ko booleeg uh, wasamaya taarix comme ni ma ko waxee waa ala kulli xaal loolu nga def mu dëgg tiital yàlla ci mbaaxam dina ñu ci defal saafara waaye ma faamtu ko ba tey xëy na laa damay farataal dafa ne wa samaay wa taarix nañ ko di bàyyi xel ndax njëriñ li nekk ci wa samaay wa taarix lépp suñu toogoon fii di ko wax defe naa mën nañ ko toog ñaari fan ba ñetti sax te du du tax njëriñ ñi wa samaay wa taarix jeex comme niñ koy farataal di jëfandikoo ci suñuy njaboot mu di ñu aar di ñuy sàmm bidatun azimatun fi xayaati l-insaan bismillah. jërëjëf oustaz mbokk bi nag nee na saa su ne dañuy bàyyi xel di dégg mbokk yi di ànd ak ñoom di gént yi dafa ci gént yi. nee na moom ci wàllam li ko jaaxal moom wutul gént fàttalikul suñu gént muy laaj moom yan mbokk yi ñoom. shukran wa ala kulli xaal xëy na li ci daal ñaata gént ci nit bari aana lu lay nit di wax nit man du ma gént wala mosuma gént axankay nit bu tëddee dana gént gént gi muy gént nag dafay tolloo mu yeewu man ko maîtriser xelam dellu si ci mu fàttaliku ko man na ko nettali wala mu ñàkk ko bañ a fàttaliku gis nga xaayaan ba ndaar ruuxal insaan muy ruuxu nit yàlla daf ci def capacité yoo xam ne yi benn bu ci nekk mën naa yëngatu ci jëmmu nit bi allahu alam nga maîtriser ko wala nga ñàkk bañ a maîtriser waaye sa ruux yàlla def na ci moom capacité yoo xam ne saa yoo tëddee mën na def yu bari ci yow yoo yii nga xam ko yii doo ko xam yii nga yëg ko yii doo ko yëg waaye comme que loolu dafay dépassé yenn saa yi euh, dégg-dégg nit wala kàttanu nit mm-hmm. mooy tax ba ñu bari di la wax ni man duma génn waaye nag ku leen ne du ma gént it alhamdulilah bu ñàkk bés mm-hmm. mun te dew donte benn yoon la ci dundam wala ñaar yàlla wan la wan ko loo xam ne lii bu yeewoo dana li liggéey mm-hmm. xaqiqiyan gis naa ko bii mm-hmm. amaa nag gént du ci xaqiqiyan gént ah, gént dafay orienté nit di la wan lu ak seegul fekkente ne lu baax nga te nga xam ko fekkente lu lay lor ma nga ca nga xam ko mm-hmm. xamit fan ngay teg sa tànk ban ñaan nga war a def yàlla mu sëlla ban sarax nga war a def yàlla aar fànqal la ko moo tax ñu naan euh, nit war na xam bu génte lu mu euh, bari aana nag ñu génte ay mbir yoo xam ne daf leen di yéen lool lool lool ba jaaxal leen mm-hmm. waaye ala kulli xaal incha allah buñ ko laajtee dinañ leen ci indil ay bayaanaat alhamdulilah dafa def jërëjëf Oustaz ci nag nee na dafay faral lu bëri di génn li nga xam ne moo di muus. Mhm. te euh, saa su ne ko génte rek dafay jaay am ci wér bu ko topp. Mhm. Mhm. muy laaj loolu la lay fekk ci wàllu yëpp. waaw shukran ya Abdullah xam nga damay farataal di wax ni ñu ci ëpp muus xaj ak yeneen yoo xeete xeet yooyu ci wàllu gént min umur shayatin mbir shayatin la bokk mbir shayatin la bokk. dinaa faral di wax ne leen euh, gént bu soobar kaani soble lenn lu ci nekk sax boo na kulli am na lu mu tegtale am na lu am na fu mu la mm-hmm. waaye nag laajte ko ba xam ko dafa am solo waaye la xañ abdullah xaj muus yooyu buñ la dàqee guddi baaxul buñ la màttee baaxul waxata buñ la songee ci nit ku ci xabu guddi wala ci biir nelaw nga gis leen baaxul waaye xijaab al xijaab al mastur fi xayaat al insaan xijaab bi ci gën nag mooy li lay protéger ba tax na bu ñëwee du ñu am doole mooy wala Souleymane Rex bi mooy wax léegi gis nga ak sama taarix nit ñi nañ koy farataal di jëfandikoo xataa booy tëdd sax nga jàpp sa do bopp doom bu góor wala bu jigéen nga jàng ko ci boppam tufli ko ci boppam incha allah du nga tëdd ba yeewu te du am benn toxu xajal la ko léegi oustaz kon daal bu déggee dañuy jàpp ne kon gént daal du hasard. waaw xam nga gént damay farataal di wax ne xaw ma ci miraaran eh, wa li nga bëgg a gént. kenn du tëdd it choisir li nga bëgg a nit ki nag bu dee ci wàllu istixaara nit ki mën na ni yàlla maa ngi lay laaj nangam. yàlla bëgg naa nga xamal ma nangam. yàlla bëgg naa nga orienté ma ci nangam. waaye nag amaa alxulm bi nafsi alxulm kooku moom mbiru yàlla la yàlla moo koy programme nit ci dundam biir eh, ay nelawam waaye kenn du tëdd xay abdullah ni lii laa programme gis tey mm-hmm. wala lii laa bëgg gis allahu alam yàlla mooy ñëw ak mbiram mm-hmm. kon ñu bàyyi xel loolu te ñu jël ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ bi de maa ngi leen di ziar yàlla yàlla nangu ziar bu baax a baax sànke bu loolu amee nag am mm-hmm. ñu bëri daana waaw sànke am mm-hmm. ñu yóbbu ci escalier yi daanu daanu waaye man su ma yóbbu ci escalier yi daanoon ko damaa wàcc ndànk lu mel ni pour yàlla moo ma wàcc yoo wala ci kirilla ma wàcc waaye nag maa ngi ci ñaar yi loolu daal moo ma jaaxal loolu nag amal cheur yu ñëw ci sama yaram waaye nag ci gàllu mel ni benn ngàll ma di ko wëndeel di ko wëndeel ba ci yàgg ma sànni ko waaye ngàll bi nag dafa doon dafa nekk ci benn ci da doon laaj nag nan ngeen baax ma ko jërëjëf jërëjëf incha allah nañ ci indi ay leeral xana bi laa nee na ñoo ko déggandoo dafa mel ni gis lu mel ni chantier waaw ci nekk jékki-jékki mel ni ku yëg fu kawe waaye ñoom fa fekkoon daan nañu waaw ni ah, loolu dañ koy farataal di wax miraaran gis nga xaaj abdullah nekk fu kawe ci dund doomu aadama yokkute la man raa nafsahu ala cheyin alim fa dalik wa fihi taqaddumun wa fihi yusrun wa fihi fathun gént nekk fu kawe yéeg ba àgg fu kawe yiw la donte ñeneen dañoo wàcc yow wàcc loo waaye yu bari la lu baaxul daal xëy abdullah mooy génn jóge ci kaw wàcc jëm suuf maa fi ci xëyra amul yiw kon ni ci bàyyi xel tam génne mboq ak dugub mu def ko sadaqa li wàcc laxet kari mu génne ko def ci am solo xëy abdullah bismillah jërëjëf oustaz ba léegi rek shukran ya Abdullah wa ala kulli xaal xam nga moom xaaj Abdullah bu guddi bi ak bu bëccëg bi amul différence benn ñaar ki nga xam ne kii dafay tëdd dëgg ak ki nga xam ne kii day laaj dara ñu woon ko ci laa xama ala xaddi sawa fil xol ñoo bokk benn ñoo ci yem kepp ci gént bi gis nga gént bi daal ñu ngi commencé xaaj Abdullah bu nit ki demee tëdd néegam di nelaw ba tàgg la ko capacité mentale am bu ñu nee capacité mentale mooy nit ko xam ne kii dem ba ba ci biir nelaw ba toll ci foo xam ne fii buñ la yeewul mm-hmm. doo mën a yee sa bopp euh, euh, distance boobu nag lu la fa yàlla woon rek jàppal ne mbiru yàlla la mm-hmm. moo xam kii laaj dara ak ci tëdd laajul dara ñoo ci bokk yem yàlla nag su namee dara am na fu ñu koy jaarale gis nga yàlla du wàcc ne yëf yaa nii waaye nag am na waasita ñu ko jaar warale mooy génn su nammee dara nar laa lor yàlla bëgg la ko woon dina la ko woon ci génn su dee baax yàlla bëgg la ko woon dana ko jaarale ci génn su dee luy xew ci koñ bi yàlla bëgg la ko woon dina la ko woon ci génn su dee it loo xam ne day la ñëw fii ak une wala weer wala ñaari weer wala at yàlla ci baaxam mën na la ko woon nga gis waaye nga gis ni xajam la jafe-jafe bi mooy li nga gis mooy laa nga xam li nga gis ni lu mu wund ak lu mu teg loolu mooy bopp mbir mi waaye wax gént moom xaj abdullah kenn du ko programme ni boppam nit du tëdd laa bëgg gis kenn it du choisir la muy gis ci gént xaqiqi leen ci julli leelatin ci guddi bu nekk waaye nag yàlla mooy ñëw ci mbaaxam waaye nag def na xaj abdullah beneen mbir mm-hmm. euh, ndax façon gént nag yoo xam ne yi dafa jar a bàyyi xel yoo xam ni la muy wund borom dafa war di ko xam mu mel ni kii def listixaar ñaan boromum ni ko yaa rabbi arini kaza wa kaza yow sama borom xamal ma nangam ak nangam yàlla ci loolu la xamal ko ba xamal ko sax lu weesu loola allahu alam nag yàlla ma xam ndax ka def listixaar dana xam résultat ba ko yàlla woon fan la jëm ak lu mu wul nit mën na def listixaar te tax mu xam résultat la ko yàlla woon lu mu jël mhm. nit mën na ko yàlla mën na ko woon dara te du xam fan la war a mën a teg tànkam ba am ci résultat xam nga damay faral di wax yenn saa yi ne leen mhm. euh, góor buy gis weer jant biddéew ak yu mel noonu su góorgóorloo lool yàlla mën na ko teg ci yoon mm-hmm. teg ci yoon yàlla mën na ko génne ci siraatam mustaqim mu mel ni biddéew jëm ci weer góor bu koy farataal da gis te sellal comme jigéen ñu mm-hmm. jubalee sellal teg ko ci siraatam mustaqim te euh, sax ci zikr euh, ak te darro ilallahi baakeen mustaafir yàlla ci mbaaxam mën na la teg ci yoon woo xam ne da nga ci jëriñu xam fi nga jëm fan la ndax ay tegtal yu rëy la xam ne du saa su ne yàlla di ko doomu aadama ma xañoon la dafa def jërëjëf oustaz amoon na tey jamono eh, loo xam ne indi woon nañ ko leeral ci suñu mhm. mbokk docteur yi comme eh, ñun dañuy faral di yëngu ak sage-femme yi yenn yi xam ne dañuy eh, taxawu ci soxna yi te si biir soxna yi yenn saa yi jur loo xam ne jëmm bi doy waar lay doon kon njaftal bi noonu bu ñu tëddee si digg dafay indil ay jafe-jafe ci wàllu jëm mhm. ñu ne suñu ñëwee moom nañ ci ñëwaat bu mhm. amee ay facteurs yoo xam ne dinañ a dimbali sukran yaa Abdoulaye waaw ala kulli xaal xam nga damay farataal def ni dafa am loo xam ne lu jar a bàyyi la am solo la. ñetti mbir ngi soo dee soo dee docteur wala ngay sage-femme di réewle. wala ngay docteur di liggéey ci wàll bi dafay laaj boo réewle jigéen te xamoo lu ci biiram lan la doon ak lu jëm ak nan la ci yàlla nam. dafay jiite ñetti mbir li ci njëkk هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن عظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم nga boole ko ak laqad jaakum ak ayatul kursi yi moom nga jiital soo naree dem ba nara réewle jigéen ci war a wasik benn ñaareel bi jiite yokk xayam la mooy nit su fekkente ne dafa am soxnaam mu war a wasin soxna si nekkee ci jafe-jafe yi wasin mu bañ a am jafe-jafe ci wasin bi sonn bañ cee sonn sonn bu métti ba muy àggann bi mhm. borom këram na jël loxo mu teg ko ci biir soxnaam mu jàng bismillahi rahmaani rahim allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxidu l arham wa ma tazaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxidu larxam wa ma tazdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar mu jàng ko xaajante la fukki yoon ak benn ci kaw biiru ndaw si ak ñaari côté biir yi su ko defee bu ci nekk fukki yoon ak benn yàlla bi rahmatihi wa bi awnihi yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem dina dimbali ndaw si ba mu wute ni bi ahsani lu ñu benn ji anam te du am benn fitna du am benn jafe-jafe xajandoo ko. jërëjëf oustaz boo gisee sax ñu ñëw ci ndax dafa mën bataaxal boo xam ni ak euh, ku yëngu ci wàllu yi moo ko yóbbante woon. Mhm. ba ne moom yenn saa yi su opéré nit. Mhm. Euh, su tëddee guddi. Mhm. ay keroog day gis mu tiim ko. bu moom sax dafay tiit ba yenn saa yi sax amoon ay jamono loolu la wax ni day bàyyi liggéey bi. comme ñu dégg na émission bi ñu ne. loolu la laaj ñu mën ko dégg. dëgg la su fekkee waa la ko joxee alhamdulilah xayma damay farataal yoo xam ne opération amu ci dara. lu war a dàq nit ba mu war ci génn naturellement buñ koy xool amul dara lu war a mën a tax nit di dem ba di ko bàyyi waaye nag dañu war a xam ni xañ Abdullah liggéey boobu seytaan ci laxas seytaane day fekk liggéey bu baax ci ñëpp bëgg sopp ko mu laxas ci ay mbiram indi ci yeneen jafe-jafe yi ci bokk zalika min umuri shayatin euh, da ngay seytaan day fekk ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi nekk ci benn kër di dund mu fexe ba tàggale leen ba kenn dootul sax bëgg gis sa morom kooku min umuri xeer bi kon seytaan boobu mooy ñëw la xasu ci li muy liggéey ba saa yu tuddee mu di ko woon ay deret ak naqare xool mhm. naqare gis ba da koy indil tiitaange mhm. ak ragal bu toll ni dootul bëgg a yi continue métier ma waaye bu fekk na dara nekkul ci métier ma tax waaye seytaan moo ci laxasu mhm. ba indil ko ci ay torof torof yu toll noonu waaye dama koy farataal di wax ne Euh, ginnaaw wasamaa wa taarix nañ ko rafetal guddi gu nekk su ko mu ne ñu jàng sóoratu yaasin su àggee ci wasamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdir aziz al alim wal qamaru qaddarnaahu manazila xata aada kal urdin al qadim la shamsa yambagi laha an tudrika al xamar wala lilu sabiqu nahaar wa kullun fi falakin yasbaxun su àggee ci ñetti ay yooyu benn bu ci nekk ca tolloo mu taxaw fa ñaan soxlaam mm-hmm. muy war sax su tajri yi li mustaqarin laha zalika taqdir alim mu taxaw fa wax fa lam fa war a wax su ci loolu muy jëlaat beneen bi wal qamaru qaddarnaahu manazila xata aada kal urjun al qadim mu wax soxlaam mu àggale it beneen aaya bi ci toog la shamsa yanbaghi la an tudrika al qamar wala leylu sabiqu nahar wa kullun fi falakin mu àggale nag taar bi ndax da koy dimbali ci mbir yu bari loolu xëy na laa tegtal bu am solo la mm-hmm. ci ñu nga xam ne ñuy yëngu ci wàllu médecine mm-hmm. eh, di ci bi ci xeetu li jaam ñi tafadal jërëjëf Oustaz ba léegi rek sànq da nga wax ne jëm eh, ci boo xoolee tekki bi mooy lu am solo bi mm-hmm. te ñu gis ne yenn saa yi ñu nekk ci ab koñ feebar te du di gën kenn ci dëkk ci koñ yi te tekki waa bu jaarul yoon mën na indi jax-jafe ci ñun ba ñu mëndoo ak li mu waroon a tekki waaw xam nga xajam la dama wa takraaran gis nga xajam balaa nit dina tëdd gént feebar feebar bi métt gént ci biir feebar bi eh, ku mu bokkal koñ di ko gis guddi gi xataa ah, te yaqana annahu huwa mhm. mu yaakaar ne kooku waa jooju moo ko fitna bu toll noonu te fekk ne demewul noonu nag xajam bu laax dana farataal di xas toujours seytaan yi day farataal di laxasu jël jëmm nit koo xam di mhm. dina koy def ci wàllu faru dina ko def ci yeneen ak yeneen ak yeneen gis nga xaajam dara nit dina am jabar di la wax ni man sama jabar damay gént muy ànd ak beneen góor xataa mhm. yemu ci sax mu lay wax ni góor bi muy àndal sax xam naa kan la kon nga gis ni seytaane day jël jëmm ku góor kooku di ko dikkal yow nag mi nga xam ne yaay gis loolu soo amul ak dal ak xel mu yaatu da ngay dem ba ñaaw njort ci ne xëy na mbir ma noonu la tëdd te fekk na yooyu yëpp mbiru seytaane la seytaane mooy am kàttan bu toll ni lu mu bëgg a def ci nit ñi def ko euh, li ñu waxoon rek itani bu seytaan innahu lakum adu mbir noonu bu mag la ci yéen kon nañ ko bàyyi xel ndax bari na lu mu yàq ay diggante ci jël jëmm ay jëmmi jàmbur ci mm-hmm. manifesté wu ay mbir boppam ba borom sax yaakaar ne kooku la fekk du kooku nañ ci bàyyi xel bismillah mm-hmm. jërëjëf oustaz ñu génn ci rek ci nga xam ne dañ ci guddi waxuma la guddi sax mais bëccëg sax dañ da ko fekk teg ci gént bi benn lay doon wala. waaw xam nga gént guddi ak bëccëg daanaka amul amul amul amul différence. Mm-hmm. ndax euh, yëpp gént la. Mm-hmm. guddi geeg bëccëg yi daanaka amul ci benn différence waaye li am solo xaajal bi la mooy li ki di gis mooy la lan lay gis ak mun li ngay gis fan la li jógee loolu mooy muhim mu euh, himma bi nga xam ni moom la gént am mm-hmm. euh, ñaareel ba it xaj abdullah gis nga wilaaya bu la ko yàlla di jox da koy jaaral ci gént mm-hmm. nubuwa bu ko yàlla di jox da koy jaaral ci gént euh, yeneen ak yeneen yu bari ci wàllu xam-xamu baatin yi bu la ko yàlla di jox da koy jaare ci ilham muy loo xam ne ni message la bu yàlla di jaarale ci nit pour mën a communiqué ak moom su ko nar jox dara ci wàllu baatin wala ci wàllu zaahir mm-hmm. loolu yëpp yàlla dafay farataal di def ci digganteem ak jaam bi xataa nañu war a xam ne nag yàlla du wàcc mukk ne julli bi maa ngi nii mm-hmm. waaye nag am na nu mu mën a jaar ak ba wax la ay mbiram wala mu dénk ay mbiram wala mu won la ay mbiram euh, loolu lu mu wund dafa bari ñu ko bëggee leer a xëy na jamono waxtu yi duñu waaye ni nañ jàpp ni daal xayambulaa euh, lu nekk di am ci wàllu gént nañ jàpp ni euh, du moom moo ko wutal boppam mbir yàlla la bismillah léegi oustaz dina dundalal seet li nga xam ne ci la ñuy def mhm. waaye dana baat boo tudd sànq muy wilaaya du ñàkk am na ci ñoo xam ne dégg nañu waaye mhm. Mhm. waaw xam nga damay farataal di wax ne wilaaya wilaaya mooy ku yàlla ubbi baaxe la xam loo xamul woon dégg loo daa loo daawul dégg gis loo daawul gis xijaab bi yàlla def suñu diggante ak asiya yi muy mbir yi asia albatiniyati mbir biir yi nga commencé di leen gis di communiquer ak ñoom di def ak ñoom di wax ak ñoom te yàlla nag day may yenn saa yi xajab la mm-hmm. nga gis nit koo xam ne kii da ngay gëdd jëm këram balaa ngaa àtt mu ne leen ah diwa ngi ñëw de nii la sol nii la mel mbub ma nañ la mel eh, nangam ak nangam moo ko tax a jóg mm-hmm. kooku minal wilaayat yi ku yàlla baaxee mooy am loolu wilaaya daal xajab la mooy ku yàlla ubbi ci wàllu baatin Euh, min ilmil baatini yi nga xam loo xam woon di dégg loo daawul dégg di communiquer ak ñu daawul communiquer muy wilaaya mm-hmm. euh, ci gàttal xayam bi laa tafadal mm-hmm. jërëjëf oustaz ndax loolee euh, ban yoon la nit mën a jaar ba loolee ñëw ci moom waaw kooku dinañ ci indi ay leeral waaye ñu fàttali askan wi numéro yi muy zéro quatre-vingt-huit six cent vingt-huit zéro neuf zéro neuf mm-hmm. bu dee waa bitim réew zéro zéro deux cent vingt-cinq trente-trois huit cent soixante-neuf quatre-vingt-trois quatre-vingt-douze waaw xam nga xayam bi laa wilaaya day ñaar bari aana la ko nit di xëccu te yàlla du la ko jox mm-hmm. bari aana it lu nit toog xëccu ko yàlla jox ko am nañ ko judduwaale juddu màgg ak wilaaya mu am ñoo xam ne daf leen di def muddata arbaina sanatan ñeent fukki at wilaaya di ka leen mm-hmm. ak yeneen ak yeneen bari na nag ñu koy xëccu pour am ko te yàlla leen ko jox euh, xam nga xaaj Abdullah yoon wi jëm ci yàlla dafa métti ñu ne dafa métti yoon dafa am xaaxam am na ay dëkk am na ay yamb yu màtt ak yeneen ak yeneen ba ba ngay àgg ci lem ga mm-hmm. loolu suñ koy waxee mooy euh, boo bëggee xam yenn yi wala yàlla jox la yenn yi dafa am comportement ba war a am ëwalam mm-hmm. da ngay nit ki nit koo xam ne kii sa wéet day bari loo bari loo jaxasoo ak nit ñi benn ñaar ngay bari looy wéetal sa borom ñett nga wàññi sa wax mm-hmm. wàññi sa lekk wàññi say naan wàññi sa nelaw lépp nga xeeroo lekki bànneex ak nelaw yu xóot ñu lay jural bànneex yooyu yëpp da koy dagg xataan sa diggante ak àdduna mu def nag sa diggante ak yàlla al wusul euh, ilal umuri mu nga mën a am yokkute jëm ci mbiri kawe yi waaye nag il faut que xajamdullah nit ki mën a bàyyi lekk booy lekk boo mën mënee naan benn kaasu soow ak ñaari tàndarma wala ñetti tàndarma mm-hmm. baax na euh, nelaw it da ngay for bët rek for bët bi ko koy xam mooy dajjante rek sa gët yi daal di sëgg euh, loo ci mën a am lu mu néew néew baax na te it bari nag looy wér di tëju bëri ci ay néeg yoo xam ni wala ci ay béréb yu sell yoo xam ni tëju ba nga koy tëju tëju woo ko pour toog di xool rek waaye daf ko tëju pour def zik wérd ngir am euh, li takuna mutadarrian ilallahi baaqiyal mustaataf su mhm. jéem a toroxlu jëm ci boromam ndax yàlla man ko woon li mu ko war a won loolu nag dafa metti moo tax ñu ne yoon yoon la boo xam ne bi yoon bu tar la bu metti la ndax du ñëpp euh, ñoo mën a am dooleeg mën a dëgg àdduna mhm. ba bàyyi wàññi lekk bu toll noonu mhm. ci lekk yu neex yi euh, wàññi nelaw bu toll noonu wéetal sa borom dëgg àdduna bàyyi fi di teew nga wéetal wéet ak euh, du ko yàlla man loo mm-hmm. waaye nag bu yàlla defee ci yow dooley baatin dooley biir mooy dooley baatin la ko yàlla defalee nag da ngay am kàttan mën ko def mm-hmm. waaye en tant que amoo dooley biir pour nga def loolu du yomb gis nga xañ Abdullah nit dina bari doole ci biti te ci biir na baamtu ko nit dina bari doole ci jëmm ji te oyof mm-hmm. waaye nit dina jëmm ji lool te ci biir loolu mbir la ñi nga xam ne dañoo oyof ci seen jëmm diis ci seen i biir ñooñu lu ñu dugg ci wàll boobu yàlla mën na neen ci dimbali ñu àggale ko te duñ ci am benn coono. waaye mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu ko defee ñaari fan ñett ba moytuwul yoonu hôpital da ci am yoon loolu mooy am nga doole yi biti waaye amoo doole yi biir sëñ Abdoulaye bisimilah. jërëjëf oustaz euh, euh, bu ñu ñëwaatee ba léegi rek ci wàllu bi ndax lépp ci wàllu gént lay feeñee. Mm-hmm. mu xam mu baax mu xam mu mu jël safaan. Mm-hmm. te ñu gis ne yenn saa yi ci yenn xeetu dëkkuwaay yi. gis ne dina am ci comme jamono ji muy doxee. Euh, fa ñu doon tuur mbalit dem nañu ba soppi ko def ko dëkkuwaay mhm. du ñàkk ne am na lu fa dëkk mhm. di wane boppam te xamuñ ko mhm. nit ki bu tëddee lan mooy wane ni fi mu dëkk ni am na lu fi nekk shukran wa ala kulli xaal xam nga loolu buñ koy farataal di euh, am solo ñuy leeral ndax bari aana ku ñëw fekk béréb dara newut mu defar ko ba mu baax daal di fekk dëkk ak njabootam pour nga xam ndax bëre bi dara ngi si wala dara nekku ci bërëb bi moo lay wax boppam balaa nga koo xam mm-hmm. ndax di nga dégg ay tànk yu dox ci kër gi wala ngay dégg ñuy ñurum ci ay wax ci suuf wala nga tëdd ba xaaj bi di bëgg génn mu mel dafa am bruit booy dégg ci kër gi mu nekk nag luy répété wu ci kuli lay di guddi gu nekk boo tëddee ba trois heures du matin deux heures di nga dégg ay tànk wala yeneen ak yeneen te du ñu ay tànk nit waaye yéen day defaree nag béréb bi daraa ngi xam nga jinne yi xëy na Abdullah al-Afaar yi comme ni ñu koy waxee jibaal yi lañ leen xamee woon ci montagne yi ak àll bi ci lañ daan dëkk ci la seen i kër nekk ak seen i soxna ak seen i njaboot waaye jamono toll foo xam ne fii ñun ñuy ràndu ci bàyyi suñu place di leen fekk si ci àll bi di toj àll bi di leen fekk si ñuy ràndu am ci ñoo xam ne ñi di yàgg dañuy sipp nag ñu xëy na Abdullah man su ma nekk moom fi jëlee waa boo ñëwee bokk moom dëkk nag. Mm-hmm. Ah, mun na laa jural fitna. dëgg la yaa sa njaboot ay toroxtalo yu bari wéere beeg jafe-jafe yeeg yëpp a ngi ci biir ci man lax ko dafa bari. waaye dañ koy xel waaye eh, soo amee waa ju baax ku mën na ku yàlla baaxee. Mm-hmm. balaa ngaa sant nga dem mu xoolal la daal fi ngay sant ndax ñëwoon nga ko ndax baax na ndax amul benn torox torox dafa am solo. Mm-hmm. kon loolu xañabulaa dafa laaj ñu bàyyi ci xel loolu nag ay tegtal la yoo xam ne day tegtal ne xañabulaa béréb yi mel noonu dafay farataal di am mhm. am na béréb yoo xam ne boo fa dëkkee soo moytuwul da ngay mujj taxawaat ndax makkaan ma day naqaree nekk day naqaree dëkk ndax ya fa nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. waaye yooyu yëpp euh, maa farat naa fi ci fil kitaab min shay la ñu yàlla waxoon mhm. yàlla nee na alquran bàyyiwul dara te loolu yëpp saafaram ñu ngi ci quranul karim duñ ko gëstoo dinañ gis tegtal ci mhm. baax euh, benn bi it li may farataal di wax mooy xaj abdullah euh, nit ñi nañ bàyyi xel ne du ñun rek ñoo fi nekk ci àdduna bi nag ñu dox mhm. yàlla rawxaan yaa ngi fi xuddaam yaa ngi fi jinne yaa ngi fi minhum muslimin minhum kafirin ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bokk ñoom àdduna bi di dox ku ci nekk yaa nga fa nekk di doxal la ngay doxal allahu alam dinañ leen yëg wala duñ leen yëg waaye nañ leen di bàyyi xel te xam ne it Euh, du ñun rek la fi yàlla teg nag ñoom it ñu ngi fi ñu sóoraale leen te di leen bàyyi xel euh, xañ Abdallah loolu dafa am solo lool bisimilah. jërëjëf sax loolu moo ñu may sax ndax kii dafa laajoon ne euh, dafa tabaxoon këram waaye kër gi ba léegi mënugul àgg. Mhm. saa bu amee bi yéene àggale ko rek. Mhm. rek daf ci daanu feebar. mu am ci ay gént yu doy waar yi koy jël yu koy tëkku. waaw waaw dëgg la xam ne xëy na daal damay di wax nii. Mhm. loolu dafa baax nga dem ci kër gi. defal ko ci ñaan ci ñeenti ko ñi ngi kër gi. defal ko ci ñaan mooy nga. jàngal ko suratu yaasin soo mu nee yaasin baax na soo mu nee wala suleymaan reex baax na soo mu nee ayatul baax na eh, ak yeneen ak yeneen yooyu dafay am solo xaj abdullah ñu jël ci kii bi ñëw eh, salaamaaleykum wa hmm. doo yëkkati baat ci kaw tuuti ñu dégg la allo waaw ah, Daba Amar bisimilah ah bisimilah waaw bisimilah waaw bisimilah. Hmm. ah loolu nga bëgg xam nu mu tekki jërëjëf. incha allah dañ ci indi ay leeral la xaaral ma la soxna. allo. waaw. man maa ngi wootee Nuwaasa damaa bëgg a xam naa ne ligne bi moo da moo coupé waaye incha allah dina àndaat ak ñun waaye nee na xëy Abdullah mhm. dafa gént di am doom moom la bëgg a xam. Mhm, gént di am doom nag dafa dafay ñaar. Mhm. su fekkee ne da fekk daf la fekk mm-hmm. nga toll ci néegu sëy maanaa nga war a toll ci am boroom kër gént am doom yiw la waaye nag su fekkente ne da dem nag ba dépassé jur mm-hmm. génn bi am doom bi yiw nañ bàyyi xel loolu su dee jigéen joo xam ne daal mu ngi ci biir sëy baax na soo nekkee ci sinna zawaaj am na ko jëkkër yaa ngi waaj a bëgg am jëkkër yiw la waaye nag ki nga xam ne kii dem na ba am ba weesu jur gént di am doom beneen bi lay doon ci moom waaye nag nañ bàyyi xel xajam bisimilah eh, jërëjëf oustaz ci nag ñun dafay faral lu bëri di gént jaan bu mag muy laaj doole lan lay teg ci wàllu gént moom ñaar rek moo ci am su bu ndaw baax na su dee bu mag moom raw xaan loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax su dee jaan bi noonu nag ci xayru eh, su bu mag nag moom beneen mbir la nañ ci bàyyi xel waaye xajam xajam bi la dañuy ànd ak eh, waari ni tuuti xibaar yi tuuti dem di allah door a continuer ci bismillah wala nga woote ci 88 828 08 18 pour nga mën a gagné chaque semaine ay enveloppe xaalis ba noppi daal di gagné li nga xam ne moom moo di écran LCD wala nga gagné 4x4 Kia Forte bu yaa ngi bi te tirage final bi waaye yéen 4 na de tirage au sort bi chaque semaine ci kanamu huissier de justice jeu agréé par la LONASE. Powered by Multimedia. 50% de bonus vers tous les opérateurs sur toutes les recharges du jamais vu dans l'histoire du bonus. Cette année, ça vous permettre de mieux préparer le gamme Tigo vous offre les jeudi 2, vendredi et samedi 4 février des journées super bonus de Par exemple, recharger 1000 francs et laver 2500 francs de crédit. Alors n'attendez plus, rechargez vite pour profiter de ce super bonus. C'est chez Tigo et nulle part ailleurs. Tigo vous souhaite un bon gamou. Bonus valable jusqu'à 50 jours. Tigo, exprimez-vous. mbokk yi taamu seetaan seen télévision Futurs Médias asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. télévision Futurs Médias di waajal gàmmu gi ni nga xam ni noonu la ko defee woon daaw fas yéene ànd ak yéen ci mbooleem programme yi nga xam ni dana am ci dëkk yi nga xam ni daan ci dundal gàmmu gi yëpp rawaate na nag Tiwaawan gi nga xam ni ku tudd gàmmu sa xel dem ci Seydi El Hadji Malick waaye ku tudd gàmmu itam sa xel dem ci burdu bi nga xam ne mu ngi am Tiwaawan fas yéene ànd ak yéen itam incha allah bi gàmmu gi ci ay programme ay direct ay plateau waxtaan yoo xam ne ay témoignage ay reportage yoo xam ne yooyu yëpp incha allah télévision bi dana leen ko indil noo xam ni indi mucc ayib lay doon kon ñi ngi ñaan mbooleem ñi nga xam ni ñooy partenaire u Futurs Médias wala képp xam ni am nga loo bëgg wane ci fan yi nga xam ni ci lañ nekk di fanu gàmmu ji service commercial bi di ci def promotion bu am solo kon gaaw leen gaaw jokkoog waa service commercial ci 33 869 91 82 disons, le père a été séduit, quand je dis je mets entre guillemets, et Koura a vécu le calvaire à cause de son mariage forcé. Elle a été également directrice d'école. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais ça ne pas quand même de continuer sa passion pour la lecture, pour l'écriture. Parce que là, elle écrit des romans et en français et en wolof. Synonyme, on appelle synonyme des mots de même sens ou de sens très proche. Rustine rendait adhésive qui servent à réparer les chambres Merci de reprendre. Ce chat chauve caché sous ses six chiches, souche de choses sèches. Moi, je peux pas le dire, donc je vais dire oui. <laughs> Et pour ce premier numéro voulez tout savoir de l'actualité automobile nationale et internationale? Vous êtes amoureux, red dingue, passionné par les belles voitures, Djibril vous donne rendez-vous tous les samedis à 14h30 dans Automag. Automag, c'est la première émission de télévision exclusivement consacrée à l'automobile et au sport mécanique au Sénégal. À ne surtout sur la TFM et nulle part ailleurs. Good and happy New Year's à nos amis mélomanes qui nous suivent tous les samedis sur la TFM, Miroir du Sénégal. Bonne et heureuse année 2012. Eh bien, nous voulons que cette année soit très douce. Integral Sound System, strictly reggae music, best reggae music. Oh, what a hypocrite world, world. Leaders, they are lying. Everything is not like this one big road with lot of signs. When you're driving to the rocks, don't you complete your mind. Looy dugg market lay doon you gotta look your target market target market bi ma gis ne ubbeeku na ci créateur yu Sénégal yi yu nu mën a mooy ci su Sénégal ñu koy ñëw ay costume comme ni nga sol absolument it's still house design mooy house design day jël nit ku nekk ak noo mënti sol ak forme boo mën a am ñu génn personnalité bi nekk sa biir si biti so bu may design dara ci yow nu may def of course mën naa design comme some capri pants sama création bu ma koy def toujours damay xool li nit ñi sol nan laa mën a créer li nit ñi sol nan laa mën a solalee nit ñi ba ku la ci Présidentielle 2012, Agora UGB l'émission. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis en partenariat avec le groupe Futur Média reçoit Ibrahim Fall, Macky Sall, Ousmane Tanordien, Idriss et d'autres personnalités politiques. Les différents candidats On débat de projet société avec des universitaires, des experts, des étudiants et des citoyens ordinaires, un panel de spécialistes composé d'économistes, de politistes de sociologues va analyser de manière approfondie le programme du candidat. Vous pouvez dès à présent lire les programmes des invités sur le site de l'émission www.ugb.sn/agora-ugb et posez vos questions sur Facebook, Twitter, émission présentée par Mamoudou Ibrakan. sa <coughs> bu dee koo xam ne nag dafa war na lool maanaam dafa ëmb rek. gént mm-hmm. bi. Mm-hmm. Mm-hmm. weesu ko. waaw su fekkee dafa war na lool. gént bi aussi loolu ñu euh, la ci am mën na ko jural xewal woote lu am benn kër gi. bu nekkee koo xam da ko weesu ay atam weesu na ko. waaw loolu nag dafay jur naqar euh, kii weesu jur naqar lay am ci wala mu am ko ci boppam wala mu am ko ci biir famille mooy jigéen bi lekk njuru gént bi am doom xajam bu loolu jërëjëf oustaz ginnaaw bi ñu ci géntee ba noppi mm-hmm. mu am ci loo xam ni borom bi war na ko ko mm-hmm. mu bëgg loolee mu téye ko mm-hmm. ba lu mu ci ñaan mbir mi daal di nangu yan yoon lay mën jaar euh, sukran wa xam nga xajam la dañuy farataal di wax yàlla wanee dara nga bëgg ko téye wala nga bëgg tàllal say loxo rabbu samawati wal Eh, ñaan ko mu may la wala ñaan nga taxaw ni nga ko bëggee gis nga nit ñi ñu bàyyi xel ci li may bëgg a wax <laughs> gis nga xaaj Abdullah nit ki balaa muy dem sax bay tàllal borom loxoom dafa war am noo xam ne ni war na ko jiital ba pare mm-hmm. mooy bismillahi rahmani rahim allahu nuuru samawati wal ard masalu nuurihi ka miskaat fiha misbaax المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال الناس والله بكل شيء عليم gis nga aaya la boo xam ne dafa baax ci wàllu ñaan bu nangu nit ki da ko jëfandikoo avant ngay def dara ci wàllu zikr ci wàllu wilaaya ci wàllu ubbeeku ak yu bari di ko farataal di jiital dafa baax ndax day lay woyofal lépp lu diisoon da lay yombalal lépp lu jafe woon ci wàllu ñaan ci wàllu xaar lu yéex ak yu yeneen ak yeneen waaye lam bëgg waxal mooy euh, di ko def 66 suba baax na 66 ngoon baax na euh, chiffre yi nag bari na ko ñuy woote di mhm. laaj mbiru chiffre yi euh, ñaari chiffre yi nii baax na ñu ci di ko bàyyi xel mu chiffre soixante bi soixante ak quatre-vingt-dix-neuf ñu moytu it ñaari chiffre yoo xam ne yu jar a bàyyi xel la mhm. bi ci jëkk mooy euh, quatre-vingt-huit quatre-vingt-huit ak bi ci topp muy 23 ñaari chiffre la yoo xam ne dañuy jar a bàyyi xel ndax chiffre yi. Mhm. du chiffre ay yeneen mbir la yoo xam ne xëj na mënuñu wala waxtu bi duñu may ñu mën a wax lépp waaye daal ci nañ ci bàyyi xel. gis nga le nombre huit dafa jar bàyyi xel. Mhm. ndax boo koy seet euh, nit mën na watul ci juróom-ñaari weer waaye bu wutalee ci juróom-ñett dafay manqué wala mu am toor waaye mën nga wax woote ci juróom-ñaar wala nga tëb juróom-ñaar muy àgg bu set nga ci waaye juróom-ñett daal néew na lu jigéen di woote ñu bàyyi xel loolu ndax dafay am ay asbaab mhm. ay sabab yu tax loolu du mën a nekk ci juróom-ñett imma mu nekk ci juróom-ñaar wala mu nekk ci juróom-ñeent nañ ci bàyyi xel muy nombre huit amaa nag àddu soixante six moom euh, li mu ëmb yëpp ci manaafi ay njëriñ dafa bari Mhm. ay incha allah moo tax ñu naan euh, boo bëggee jege sa borom di ko tàllal say saa su di ko ñaan mu di la may del farataal di saxoo bakk allahu nuru samaawaati wal ard dafa mel ni ci misaal ku bëgg dëkk béréb te béréb ba ci dem nga ñëw bala ko mu set nettoyé ko ba mu propre nga daal di ñëw door a installé mhm. nit boo bëggee jàkkaarloo ko rabbu samaawaati wal ard ba di ko tàllal say loxo amal foo jaar ak moom door a tàllal say fi ngay jaar ak moom nag mooy li ñuy wax ni léegi muy ngay wér de allah noonu samaado ak soixante six ngoon soixante six suba euh, dajëwe nañ ko ñu mhm. wàllu ñaan bu nangu ak yeneen ak yeneen xaja bu nag jërëjëf oustaz dañu ñëw rek euh, ci chiffre vingt-trois comme ni ko waxee du ñàkk ne am na ci ñoo xam ni ñoo koy daal di jëfandikoo euh, bi nga waxee loolu rek ñu ci bëri taxaw nañu di xaar loolu lañ ci leeral. Mhm. ndax foofu mën nañ ci leeral tuuti rek ñu ci seetaan mën a xam ci. waaw xam nga du 23 rek du 23 la ak 88. Mhm. xam nga dafa am ay chiffres yoo xam ni euh, ni mu koy waxee dafa am nu ñu tuddee euh, nuuraaniya ak zulmaaniya. Mhm. lëndëm ak leer mu am chiffres yoo xam ni day xeetoo ci wàllu lëndëm ba ci nit dugalee fit fitna la koy jural ak i tolof tolof ak i jafe-jafe. maam am béréb boo xam ne boo ci dugalee sa bopp xanabillaa leer la lay jural yiw yokkute ubbite euh, yooyu la chiffre dafay nekk ay chiffre yoo xam ne dafa bari ba nga xam ne mënuñu lu mën na yëpp sax mhm. waaye dañ ci tënk ñaar ba ñett rek di ko wax nit ñu di ci bàyyi xel euh, gis nga xanabillaa yàlla mu bindee lii bindal ko leneen mhm. lu muy def ñaar la koy def su defee góor def jigéen su defee yiw def safaan su defee bànneex def naqar waa nga kulli xaal àdduna noonu la yàlla tëral bu jëree weer weer ñëwee feebar na mhm. bànneex ñëwee naqar ñëw yooyu nag bu ci nekk am na lu ko yàlla féetale bu dee ci wàllu bànneex am na ci chiffre yi ko yàlla fay féetale muy wërsëg bànneex am am yokkute euh, ci ci fànn yu bëri ay chiffre am spécial am nga xam ne nag safaan la ay chiffre ñi ngi fi waaye dañ ci bàyyi xel ndax askan wi bu ci xamee bu ci jàngate bu ci xam fu mu teg seen i tànk mhm. ñi moytu it di jël ay lim di ko wér te du ñu xam xaqiqiyam lim yi fu mu la jëmee ak lan moo ko wënd mhm. waaye nag di gisee ku am xibra xibra mooy ku am expérience ci wàll wi waaye kilifa bu baax bu yàlla may ku yàlla baaxee nga dem ci moom mu jox la ay tegtal dafa am solo ñoo xam ne ni dañuy wër de façon tur bu nekk mm-hmm. te duñu xam sax fu mu leen jëm gis nga dama koy farataal wax yenn saa yi ne leen nit ñi nañ moytandiku tur yooyu nga xam ne dafa bari siin yu tooy mm-hmm. dama koy bañ di tudd mm-hmm. ndax xam naa li tax waaye nañ moytandiku siin yu tooy yu bari yooyu daal ci tur tur yu gudd yooyu te bari siin yu bari yi ah, nekk ci asmaa ar-rawxaaniyiin wal quddaamiyiin wal jinniyiin nañ ko bàyyi xel ndax bari na lu mu yóbbu ni fu mu xamul Mm-hmm. jural la ay fitna jural la ay tolof tolof te lan cee seet amaana doo ca gaaw a àgg gis nga am na tur yoo xam ne day dem ba sànq nit ba sànq nit réeral la doo xam fan def sa tànk mooy tax nit di dem di dem di dem ba dooleem jeex ci tur wa te lam koy wut du ko am te xajam la nit ñaar rek lay wut ci àdduna mm-hmm. dund dund gu sell ko ci anam gu sell ëllëg nga dee dem àjjana hmm. ñaar yi moom la nit di dund bëgg ko taxal ci àddunaam hmm. ñaan yàlla yàlla defal ko loolu hmm. dund bu sell ak dee dem àjjana ñaari mbir yi moo soxal doomu aadama waaye benn bu ci nekkit waa ala kulli xaal yàlla may na may na lu ëpp loolu wa ma zalika ala llahi la bëggee may dalay may euh, su lay xañit dalay xañ robinet bi mu yor daal bu la koy xelil kenn mënu koo tëj waaye bu ko tëjee kenn mënu bi ubbi xaaj Abdoulaye bisimilah. léegi oustaz eh, ci wàllu chiffre yi rek dinañ ci daal taxaw tuuti def ci ab jàngat tuuti ndax ay jamono amoon na ci benn chiffre bu ñu indi woon ba nit ñi doon ci am laaj mu chiffre ma jumul ndax ku fee mën nañ ci daal di tënk. waaw xam nga chiffre vingt moom euh, bokkul ak yeneen chiffre. Mm-hmm. chiffre vingt dafa baax. Mm-hmm. baax na ci wàllu yu bari. Mm-hmm. baax na ci fànn yu bari loolu moom euh, ñi xam ne xam nañ chiffre xam nañ. addu lu bon ala kulli xaal amaa nag yeneen chiffres ay 66 ay 99 yooyu yëpp ay chiffres la yoo xam ne ba tey it du ñu chiffre yu bon waaye li ci am solo mooy chiffre bu ko nit ki yoree di ko jëfandikoo nañu jëkk xool ba pare lan la ci jublu ak lan moo tax mu jël chiffre dëgg la bu dee 66 loo ci jublu bu dee 99 loo ci jublu bu dee leneen ak leneen loo ci jublu waaye nag ki la ko joxe na ci am expérience na ci am xibra na nekk euh, xabiir fi na nekk ku xam chiffre ku xam al awqaat al munasaba waxtu yi nga xam ne dafa méngoo ak mbir yi mm-hmm. gis nga xaayam bi la damay wax ni soo amee sa soxna nga xëy jox ko sa dépasse su mu togg la añ wala nga fan wala boo mu fanaanoo dépasse bi xëy war laa toggal añ mm-hmm. su la ko taajalee su la taajalee añ bi huit heures ci suba teel ah di nga góorgóorlu bu lekk rek waaye di nga xam ne du fii du waxtoom mhm. ndax añ ñu ngi ko xam ci diggante mhm. midi jëm une heure mhm. loolu dafa am nu wund lu bari day wund ne xaj abdullah loo gis am na ay waxtu yu ko yàlla sopp di ko ca def xam aw al al al awqaat munaasaba xam waxtu yi nga xam ne moom mi nga njëriñ dafa am solo lool nit di ko xam Euh, ñu bañ di tëñëx tëñëxi bay daanu foo xamante ni amaana du foofu mhm. ndax euh, jëm ci yàlla dafa métti mhm. dafa métti mooy euh, fi ñu koy yaakaare ak fa ñu jëm dafay xaw a wuute tuuti mhm. gis nga yàlla boo bëggee àgg ci ay mbiram na nga xam benn quraanul karim da nga xam alquran xam manaafi alquran xam li ci biir alquran lu mu doon xamit lan la alquran digle lan la sunna digle lan la sharia digle nga ko door a xam koy mën a teg ko tam ba doo juum mm-hmm. su ko deful xajam ba da ngay tëñ a tëñ ba daan foo xam ne ni amaan na du foofu mm-hmm. waaye su ngeen ko xamul it yàlla alquran nee nañu fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamun su ngeen xamul waaye waaye góorgóorlu leen am na ñu ma fi xamal ñu xam mbir yi ngeen dem ci ñoom ñu ndax ci am solo kon ku réer da ngaa tegu sa tànk fa ko war a teg Mm-hmm. ku ñàkk xamit da ngaa demul ca ña xam ñi xamal la loolu dafa am solo loolu xayat bi si bismillah eh, jërëjëf lool loolu la may rek eh, dinañ farataal lu bari di gis ne ci wàllu gént lay ëpp di feeñee muy ci wàllu rab ndax yenn saa nit ki di tëdd bëgg di bi sëy ak koo xam ne ku mu xam la ba su xamul tekki bi mën na yaakaar nag leneen la waaw xam nga am na sax ñuy woote xayam bi di ma wax ni man sama soxna day damay gént muy am lante beneen góor mm-hmm. ba yaqinan mu dem sax ba ku góor kooku su ñëw ci këram wala mu koy gis bu yàggee njortam day ñaaw mhm. te saa yu tuddee gis kooku di ànd ak soxnaam yooyu day nekk tegtal yoo xam ne yi bari anal li ci seytaane di laxasu di jël jëmm waajo ji te fekk na du kooku mhm. waaye loolu dafa jara bàyyi xel euh, loolu nag su amee dañu farataal di xam ne ku góor ki na fexe jàpp ci bopp jabaram gudd buy tëdd nelaw mu téye boppam mu jàng ci wasamaa wa taarix ma adraaka ma taarix ndañ mu saaqit in kullu nafsin lama alayha xaafid fal yanzur insaan mimma xuliqa mimma in daafiq yaxruj min bayni sullin wa taraa'ib innahu ala rajmihi la qaadir yawma tubla saraa'ir ma lahu min quwwatin wala naasir wassamaa'i zaati raj'i wal ardi zaati sab'i innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan famahhil kaafiriin am hilhum rawayda di ko jàng fukki yoon ak benn di bopp soxna si loolu di ko fay dina ci moom incha allah yàlla dina ko dimbali ba mu génn ci loolu xaya bulaal ci eh, jërëjëf oustaz nag nee na eh, dafa am lenn loo xam ni saa ne bu ko géntee rek day nekk ci moom ba bu jógee di dem fenn pour eh, ku ko ci defal ab ñaan mhm. day mel mbir mi da koy topp mhm. muy laaj loolee lan lay teg waa shukran wa ala kulli xaal dañuy fàttali askan wi rek numéro bi muy 88 628 09 09 88 628 09 09 bu dee waa Sénégal bu dee waa bitim réew ñu ànd ak ñun ci 00 221 33 869 83 92 xajal balaa ñu ñëw ci ne sa laaj bi mhm. xam nga bari aana loolu la nit di wax ni damay dox mel day am lu may topp mhm. bari aana loolu la nit di wax ni man su ma toogee damay gis ku toog sama wet mhm. bari aana loolu la wax man ki may gis su ñëwee ci man damay tàggale ko ak sama sago mm-hmm. yooyu dafa nekk mbir yoo xam ne yi dafay farataal bi am yow mi nga xam ne ne xamoo ko maîtriser woo ko doo ko gis dafa lay xaw a yéem tuuti mm-hmm. waaye gis nga damay farataal di wax ni uh, nit su fekkente ne mbir yooyu da koy dikkal da ngay jël kaas bu am ndox nga jublu penku nga jàng ayatul kursi be fukk ak benn tufli ko ci laqad jaakum fukk ak benn tufli ko ci wala suleymaana reexa fukk ak benn wa samaa wa taarix fukk ak benn nga nàndal ko ko ci ñetti waxtu ñetti waxtu yi mooy suba teel benn isbaar takkusaan balaa timis suba teel isbaar takkusaan lépp lu mu doon gis di ko ñaan moom teg moom waala kulli xaal yërmande yàlla ak ndimbalam yàlla dina ko fànqal loolu nañ ci bàyyi xel bu baax xañ Abdoulaye ñu jël ki ci ligne bi tamit asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi bi dafa am lu ma jëndoon. waaw bisimilah. allo. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. Mhm. man dafa am lu ma jëndoon waaw bon koo laajte. waaw bisimilah. waaw man dama ànd ak sama soxna. Mhm. waaw léegi mi ngi ànd ak sama doom bu ndaw bu mu boot waaw. Mhm. waaw ah, léegi ma ma dem bay jublu mel ne gen su teg sama tànk waaye mhm. ah, moom mu xëcc ma bi ma xëccee après mu teg fa tànkam waaye xamutoon ne moom loolu teen la dafa teg li tax ci tànkam rek suróof mhm. waaw ba mu suróofee léegi après moom ma yuuxu daal pour ni wàllu ni ñu ñëw génne ko mhm. mu def fa ah, sama doom bi ci sama yaram yow sama yaram bi metti daal asam nga doon génn génn gi. sama mhm. jaaxaloo. Mhm. ma di ko laaj. jërëjëf. waaw. shukran wa ala kulli xaal dinañ ci indi ay bayaan léegi incha allah xale bi laa ñu ko dëggaloo. mais mhm. dafa ànd ak soxnaam ñu ngi dox ba si yàgg ñëw ba jub benn teen moom moo ci doon bëgg a daanu sax jabar ji xëcc ko. waaye jabaram moo ci mujj daanu ak xale bi. al biiru makrun wa xadiatun fi xeer al insaan maa fi xeer. teenu guddi baaxul lu baaxul la ay mbir yu baaxul la sa jawar bu ci daana baaxul sa doom bu ci daana baaxul xataa yow sax boo ci daana woon baaxul waaye nag nañ ci bàyyi xel ndax jar na mu togg lax juróom-ñaari mbas yomal isnayni bu si altine wala bu si alxamis mu génne si sadaqa yooyu si laay karim yemul foofu it na nga xel su jàngee su mënee alquranu karim balaa ginnaaw bu ñu génne sarax ba pare nag muy def ay leemaay digganteem ak ay njabootam dinañ jàppale ci wàllu liimaan yi dafay baax gis nga xañ Abdullah euh, am loo xam dama koy jox ni ñi di ci xel mhm. gis nga nit soo jullee farata bu nekk war nga wërd mu néew néew néew war nga wërd allahu ya xafiiru soixante six ci julli bu nekk allahu ya xafiiru soixante six ci bu nekk allahu yaa xafiisu soixante ci julli ci sa julli farata bu nekk ndax da nga daf lay aar aar sa njaboot aar sa famille aar ba aar sax lu dend ak yow mm-hmm. allahu yaa xafiisu dafay am solo lool nit ñi di ko faratal di jëfandikoo yàlla nag dañu fi bàyyil ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ci war a jëfandikoo tënku ci ñi koy bàyyi di jëfandikoo leneen du loolu ñooy sonal suñu bopp waaye daal yàlla bàyyi na fi ay xéwal yoo xam ne buñ ci tegee suñu tànk wa ala kulli xaal dañ ciy jëriñu allahu yaa xafiz julli farata bu nekk nga def ko soixante six dafa baax nga ñaan ci yàlla yàlla aar la aar sa njaboot aar lépp lu taqit yow ak lépp lu la jege dama zalika ala allah jaami bismillah jërëjëf oustaz dañuy laaj lan moo tax yenn saa bu tëddee guddi bu géntee la mu génte xaw xaw a am yëg-yëg ci wàllu bi mhm. comme mbokk mi buñ ko déggee nee na ba muy xëyee suba dafa nemmeeku yaramam di nekk mhm. yan lan moo waral loolu a ah, xam nga bu dee taw bi dañ ñoom dañ am nañ ko tuddalee seen bopp mhm. boo waxee ñu ne la waa ji dafa am un sixième sens très développé loolu lañ lay wax waaye ñun xamuñu loolu ñun li ñuy wax mooy dafa am lu ñuy tuddee ci bil arabiyati shuur shuur jismi shuur ruuxi shuur aatifi euh, wa ma ila zalik su ne dafa am yëg bu nit di am mm-hmm. day am souvent ci diggante doom ak baay di am souvent ci doom ak yaay ba tax na su dara nare ñëw luy lore yaramu baay dana ko yëg wala yaramu yaay wala yaramu doom wala bokk sa jëmm am lu mu sentir luy tegtale ne xajam bi laa mbir bi nar a xew ñu jël ki ñu limité ñu salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam soxna waaw. waaleykum salaam. bisimilah. ça dama bëgg ngeen firi ma gént. bisimilah ñu ngi lay déglu. sama jëkkër dafa gént hmm? yaayam di teg safara ci kaw bu xam. bisimilah baamtu ko ñu dégg. waaw sama jëkkër moo gént yaayam di teg safara ci kaw boppam. di safara ci kaw boppam. sama jëkkër. waaw. dafa gént yaayam di tàkk safara ci kaw boppam. waaw bisimilah dégg nañ ko. Ah, daf géntoon tamit sama yaay wax ma sama doom dafa am cancer. Mhm. baax na allo. waaw. loolu rek laa bëggoon ngeen si. waaw baax na dinañ ci indi ay leeral léegi incha allah jërëjëf. Eh, xëy na balaa ñoo ko dégg na. Mhm. boo gis yaayam di tàkk safara ci kaw bopp doomam dafa naan la. dëkk la moo gént yaayam. waaw borom daal teg bopp taxaw ci kaw bopp mhm. safara nag suñ ne ko tegee ci kaw bopp baaxul mhm. suñ ne ko tuuree baaxul suñ ko tegee bërëb nga dëggaat ko baaxul safara bi taax mooy safar bi nga xam ne da daf laa dànd nga di ko seen mu am flamme mooy flamme mooy tàkk-tàkk bu jëm kaw mhm. boobu baax na soo ko gisee sa biir kër baax na soo ko dàndee di ko gisi baax na a ah, naaru nuurun wa nooru fiihi naarun ñaari mbir la yoo xam ne mënuñoo dem bàyyi sumaram gis nga euh, gis nga am na mbir yoo xam ne alhamdulilah am na foo xam ne fii da ngay fekk yàlla ci mbaaxam dina jël safara dugal ci ndox te ndax dafay safara safara te it du mën a yàq ci ndox mi dara. Mm-hmm. xam nga daana ñun sunu sunu dund. Mm-hmm. loolu. méngale safara ak ndox ndox ma fay safara sa mhm. waaye yàllaa ngi safara si ak ndox soo xam ne si dañuy lëkkaloo nekk benn béréb te kenn du déranger moromam safara du du ndox mi du yàq ci safara si dara loolu mu yéeme loolu waaye li ñu koy wax daal mooy ne safara si ci kaw bopp moom maa fii di xeer gént nag ñu ne la da nga am cancer danga da nga am feebaru yaram bari ana lu muy lu ko lu ko nit ñi di laaj yaakaar ne eh, day jur xarfat déedéet gént feebar nga ne feebar géntu feebar ba yokku da ngay tënk li baaxul daal mooy nga nekk ci feebar xañabu la xëy benn bés wér seen ne dara mosulaa jot maa fii fi xëyr amul yow waaye gént ñi ne danga nga feebaral wala ñuy wax ne da am benn ci feebar yooyu euh, amul dara lu ci am xartaana borom day xaw a tiit yaakaar ne noonu rek waaye dama noonu am benn feebar bismillah jërëjëf oustaz comme sànq suñ ko waxee sànq dafa am yëg-yëg bu am ci diggante doom ak mhm. waajuram te ñu gis ne yenn saa yi am na ci ñoo xam ne dañuy faral di gént seen njaboot bi nga xam ne nekk bitim réew mhm. yenn saa yi daf leen gént xam ne day mel ni kooke yaay ji dafa am lu mu yëg ci jëmm jooju mhm. loole bu amee lan mooy doon saafaram ngir yaay ji ci fi mu nekk ñu xam ne shukran yàlla ala kulli xaal gis nga soo gisee ñuy wax sarax sarax dafay attévé wàññi lu bari dafa farataal xam ne nit dina toog fii am accident bitim réew mhm. waaye juróom toog fii bu góor ak bu jigéen kenn ci ñoom ñaar yàlla woon ko accident bi mhm. woon ko tolof tolof bi woon ko jafe-jafe bi ci dinaa xëyatal xol mi ci wàllu gént bàyyi mën na ko gént yaay mën na ko gént rakkam bu jigéen mën na ko gént rakkam bu góor mën na ko gént mhm. su ko defee buñ ko nettalee gis bay bi wala yaay bi daa def ci téléphone yi xaaral ma woo ko laaj ci lu mu nekk mhm. mu woo mu tombe juste mu ko yaay kat dama am tolof tolof wala bàyyi dama am tolof tolof ci naa nga mu dama nga dégg borom ne loolu de man gis naa ko biir sax wala sa yaay wala sa rak sa mag mhm. euh, loolu nag xajandu la dafa am li yoo xam ne yi su mënul tàggale ko ak nit rek loolu du fi dañ dëgg la gis nga nit kenn mënu ko tàggale ak takk te takkandeer daf nekk loo xam ne ni dafa jar a bàyyi xel ci dundu doomu aadama mhm. bari aana luñ ko woyofal lool xam nga nu mu doon ku nekk am na takkandeer boo xam ne moom ngay wéy moom ngay doxee te doo ko sut du doo ko raw du la raw doo gën a gaaw du la gën a gaaw da ngeen di tolloo ñett te kenn du raw sa morom nag li yàlla def ci moom mu ànd ak mooy tax xaj abdullah euh, boobu yàlla di ko def ci nit ñi yëg-yëg boo xam ne ngi nit sax dina wala génn àdduna ci yenn waxtu yi wala yenn bërëb yi wala mu génn àdduna ba pare mu am ko yàlla wan ca koñ ba koñ ba mu dëkk wala gox ba mu dëkk mhm. ko la wan ne ah man de lii de gisan naa ko démb wala gisan naa lu mel noonu démb wala biig wala yu mel noonu waaye yooyu dafay farataal daal nañ ci bàyyi xel xaajam bi la bismillah jërëjëf mhm. oustaz lu mel noonu bu amee eh, lan la waaw li farataal li ci gën nag mooy ñaari mbir borom dafa war a def nàkk dugub na naa ko duggum dafa baax ñu nag yenn saay daa ñu gënee sarax sarax yi ci war amul mhm. muskila mooy xat-xat ñun dañoo tàmm euh, tànk jafe-jafe ñëwul rek duñu génne sarax tànk xat-xat génne sarax yi ci gis na nag ñeent fukki dànk ak benn ñaari ndab li toggul ay ceeb juróom-ñaari ndab ak yeneen yeneen muy nekk ay sarax yoo xam ne euh, lu muy jural nit yi ci liy ñëw ak li ak seegul ak li waaju ñëw te ak seegul dafa bari kon ñu bàyyi xel ci ixraaju sadaqa ilal masakin wal fuqara wa duasa ixraaju sadaqa ilal fuqara wal masakin wa duasa génne sarax jox ko aji néew doole yi ñi nga xam ne ni bu ñu añee ñu reer bu ñu reere bu ñu lekk yittewoo ko lool soxla ko lool di leen jox sarax yooyu dafay baax waaye nag charte bi condition bi mooy nit ba génne sarax defar ko ba mu baax togg ko ba mu normal li ci war a dem yëpp nga def ko ci soo jox nit alal ci wàllu sarax jox ko loo xam ne dina ci jëfandikoo boo yëg ci boppam ndax kat alquran moo ñu ko jàngal alquran moo ñu ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun waaye doo fekk loo xam ne ni nag wax dëgg yàlla kenn bëggatu ko soxla woo ko keneen soxla woo ko di ko génne sarax loolu du am solo sarax bi daal sopp nañu mu nekk lu baax bu dee ñamit nga togg ko ba mu baax lépp lu ci war nga def ko ci bismillah jërëjëf oustaz euh, ne dafa gént rek ñu daal di ko sotti ndox bu tàng mm-hmm. mais ne fañ ko ko sotti ci tànk ba mu xëy ba def di tànk bi mel ni lu lakk mm-hmm. nee na ki ko ko sotti kenn ko ci gént bi mm-hmm. nee na ba mu xëyee suba dafa daagu nang ci këram daal di wax ak moom muy laaj loolee lan fekk ci wàllu gént waaw chukran ya abdullah gis nga ba géntee nit mu sotti la ndox mu tàng comme la sotti ndox mu tàng ma am jafe-jafe wala am métti ne xëy daagu dem wax ko ko Euh, warul woon nag daagu dem wax ko ko mm-hmm. waroon naa la ko xam mu bind ko gis nga ndox bu tàng bu sottee ko sow du tekkiwul ne waa ji nga gis moo la ko sotti mm-hmm. déedéet xanaa la dafa tolloog métit bi waroon naa ñëw ci tàng ba ci jamono boobu ndox mu tàng mi cay sotteeku nag dalilul fekkeel la buy wane ne am na lu dara ñëw ci yow xataa nag su fekkante ne xaaj Abdullah mbir ma noonu la tëddee kon balaa tànk baa metti yaram ma lay jëkk soode ba pare mm-hmm. danga balaa tànk baa metti ndox mu tàng mi lay soode sa fekkoon xaqiyan noonu la tëddee kon defe naa ni ndox mu tàng bi ñu sotti mooy jëkk soode sa yaram yàq sa yaram mu door a ñëw ci tàng bi waaye nag seytaane bari na bari bu doole bu toll nii dalay ji laxasu ci doomu jaambur wala nit nit koo xam ne kii jaamburu yàlla la mu indi jëmmam taxaw sotti la ndox fa mu la ko sotti foofu di dem wax ak moom te amaan na sax du ko waaye nag xëy na ñàkk a xam mooy tax nit ñi di doxalee yenn façon doxalin yi waaye nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax nit lu mu xamoon te maîtrisé ko na ko laaj ñi ko ci tane amaana ñi gindi ko teg ko ci siraatal mustaqim ba du juum te du def erreur euh, xajam laa dafa jar a bàyyi xel bisimilah. jërëjëf oustaz kii nag ñun dafa fekk lu bëri di gént di réer wala alalam di réer ñu laaj loolu yàlla nekkati ci wàllu gént. waaw gént bi réer moom jafe-jafe wër sëg la balaa nga ci jot day sax day lool moo xam sa dàll moo xam nga moo xam nga ñu ngay doxee benn tànk euh, benn dàll benn dàll bu gisatoo ko yooyu yëpp euh, min min al mataaib wal mashakil euh, wa suubat wa ma ila zalik dafay aay nekk ci tolo tolo si jafe-jafe yu tar sa dàll réer gént ngay réer xamoo foo jëm ay xar-xar la ci wax dundu doomu aadama dafa jar a bàyyi xel jërëjëf oustaz kii nag nee na ndaw la waaye euh, euh, moom dafay fréquent lu bëri di génn ci lu bëri ay xew yu bëri wala luy am lu ne gis na ne moom ci jëmmam dafay daal di gis mm-hmm. nee na nag euh, comme émission bi am na muy laaj loolee nan lay def ba aaru ci boppam ba mm-hmm. mu ko bëgg a rek mu yaatu ba du ko indi benn jafe-jafe ci wàllu wér yaram ah, shukran ya abdullah wa ala kulli xaal loolu su boobu su bëggee yàlla dimbali ko ci loolu waaw mm-hmm. ah, xanaa bi nag dañuy def li may bëgg a wax na farataal guddi gu nekk balaa bi mu jàng 41 ñeent fukki yoon ak benn wa tiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haadha albalad al amin laqad xalaqna al insaan fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin illa alladina aamanu wa amilu saalihaat falahum ajrun xayru mamnuun wa man yukadibuka ba'du biddiin alaysa allah bi ahkami alxaakimiin 41 guddi bi nag incha allah yàlla dina ko maîtriser loolu wan yoon xam ko muy teg tàngam bismillah jërëjëf oustaz kii nag nee na dafa am ay seex nee kenn ki seetlu na ci moom bàyyi na xel ci moom mu ngi toll ci juróom benn weer juróom benni at nee def na remarque ci moom lu mu wax rek bu toggee ay fan rek da koy gis ba yenn saa sa su waxee ne jànq bi dina sol lii bu jànq bi ne loolu lay sol mm-hmm. nee bàyyi na xel ci moom mm-hmm. bu baax a baax ci yooyu nee na loolee tamit nga nga baax ci loolee lan la ndax bu ko indi jafe-jafe moom tamit gone googu mm-hmm. ndax lan la ko mbir moom fan la ko mën a yóbbu waaw sufran ya Abdallah xam nga euh, yàlla dina def xam-xam ci nit mhm. ak gis-gis bu yaatu fi sinni tufoliyati jamono ndawam mu màgg loolu réer ko te du xam lu tax loolu réer mhm. yàlla dina def ay maqaamaat fi sinni tufoliyati insaan jamono ndaw doomu aadama mu màgg loola réer mu nekk ay mbir yu kéemaane waaye gis nga xaj Abdallah hasard dafa amul ci dara mhm. rek yàlla da teg siraatu mustaqim yàlla dafa teg mbir yi fa mu yelloo tëdde kon hasard amul waaye suñu xaj Abdallah euh, nit mën na toog mu am luy moom di ko communiquer lu nekk di ko wax lu nekk di ko xamal lu bari di ko wax lu bari di ko déy lu bari amaana yow mi nga xam ne yaa toog moom doo ko gis doo ko xam doo ko dégg waaye danga gis ko lay wax ni xaj mag ñu jëkk ñu dañ la daan wax ni ah biig de man xaj Màkka la jullee gee mm-hmm. xëy yeewu toog di ndekkeeg yow mu yéeme lool mu jaaxal la lool waaye dafa am lool nu mu tuddee gis nga jamono bu njëkk ba dañ daan def euh, xam ne euh, indahum ilmu sirr mm-hmm. xam nañu sirr dañ daan jëfandikoo li ñuy tuddee ilmu tay ilmu tay mooy xam-xam boo xam ne bi xaajambilaa lu ko yàlla baaxee mën nga ñëw ci yoon wi ñu ne mm-hmm. ci yoon wi moo jëm màkk nga jël sa bant ko ci kaw yoon wi salaasa maraatin yoon wi mën naa lemu ba mar nekk fii ba mar diggante fii ak marché Tille jege lool nga dugg fa def li nga def mm-hmm. sa aaj dal di ñibbi si génnaat kooku bu la nee zurtu baytullahi alxaram bil ams bi maa ngi woon naa ko doo ko mën a dégg mm-hmm. ah, boo gàttee ak dégg-dégg wala nga gàtt xam-xam loolu doo ko mën a xam waaye nag xam nga zahir ak baatin dafa dul benn ñaar la yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy tëkkale te bokkul mm-hmm. borom baati nag moom xususiyaat la xususiyaat yu yàlla di jagle nii du ñëpp la koy jagle nag waaye am na ci ay nitam ndeysaan yu muy baaxee yu mel noonu yàlla na ñu yàlla boole ci ñoom koy baaxee euh, xajam la muy jara bay xel kon nga gis ni baatin moom beneen mbir la ñu bàyyi ci xel bismillah jërëjëf oustaz kii nag nee na euh, gént gi laata muy am soxla la woon mm. mu géntoon gént goo xam ni dañ ko ne soo amee soxna mm. soo amee ñett di nga am ñetti doom mm. ñetteelu doom bi mm-hmm. euh, da nga koy daal di tuddee tur sàngam mm-hmm. daal di ko yóbbu daara waaw nee na ba loolu amee noonu la ko defee waaw sukran ya abdullah ala kulli xaal xam naa ni kooku mooy mooy suñu dernière mm-hmm. euh, laaj waaye wa ala kulli xaal comme que waxtu wi dem na xanaa dañ koy tënk rek ci ci gàttal xamal ko ne ko buñ la defee ilham envoyé la di rappel message la jot ko bind ko defe ko niñ la ko waxee dafay yiw bu bëri waaye incha allah yow ma jimaal maxdula ajina ñi ñëw bu soobee yàlla suñu ci yàlla fekkee buñ ci dellu bi dinañ ci indi ay leeral yu gën a leer mm-hmm. gën ko ko leeral ndax nekk ni waxtu wi daf ñu def xaja abdullah mm-hmm. waaye balaa ñuy def dara rek euh, ñu delloo la kàddu nga tàggatoo askan yi ñu door a tàggatoo jërëjëf oustaz maa ngi nuyu mbokk nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di ñu seetaan waaye di ki nga xam ne moo di Abdou ak soxna Marème Bousso Ousmane seen Kam Malick Diagne ci Tivaouane nuyu ki nga xam ne moo ci Ibrahima Diop Kër Mbaye Fall Mouhamed Diarra ak Ibrahima Sané foofu ci ci wàllu Fapal Seye ak wàllu ga di nuyu ak mbokk yëpp yi nga xam ne ñoo daan nañu dugg foofu. shukran ya Cheikh Abdullah ah, ngi ziar mbokk yi nga xam dañuy bàyyi xel saa su ne di ñaanal ñi gàmm ji yàlla na si yàlla nangu seen gàmm ah, këru yàlla fi yàlla saxal jàmm ah, réew mi it yàlla na fi yàlla def jàmm ci jaay yëpp ñu ngi ziara Mati Ba Demba Ndiaye Souleymane Ba Xadjat euh, Sam ñu ngi leen di ziara Soxna Ba ñu ngi koy ziara ziara ba tey Malick Ba Mata Ndoye mbay Mbaye Medina Mbaye soxnaam ziara Adama Ndiaye ak soxna di ko faal di ziara ba tey Xaj Abdullah Ami Ba su yoro ñoom ñoo fàttewu ñu leen di ziara ba tey Bintu Ñang di ziara Xaj Abdullah Ndiaye Sarr ma koy ji fàttewu ñu leen di ziara ba tey Abbas Diadiaga ak soxna Awa Diaw fàttewu ñu ñoo ñëpp di ziara Ndey Ba ci Dakar ak borom këram Cheikh Nassama di ziara Marguerite Camara di ziara Rose ci France di ziara Lamine Sall euh, ñoo ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara docteur Pouy suñu coloré Ami Touré ñoom ñëpp bu ñu leen fàtte Hadj Abdoulah di ziara Mansour Sara maam li suñu fàttewuñu kenn euh, Hadj Abdoulah di ñaan yàlla nag yàlla na ci yàlla sax saxal jàmm bu sax ci suñu réew mi bu jaay sëñ bi dal wajur bismillah rabbi laa yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratika ya allah wa ala an dicri zakirin kibriya wa azamatika ya allah fala yantaqis ya ilahi ma aradta an yazdaad wala yazdaad ya ilahi ma aradta an yantaqis la ahad shahidaka xina fatarta alxalq ya ilahi wala nidda wala didda xadaraka xina barrata nufus ya ilahi اختلت الألسن عن تفسير صفتك يا إلهي وانحسرت العقول عن كنه معرفتك يا إلهي فكيف يوصف كنه صفتك يا رب يا من قال لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتود العظيم صل وسلم على عين ذلك العلية bi anwaa kamalatikal bahiyati fi xadrati zatikal abadiyati an rabbikal xaami bika minka laka ilayk salaatan ilahi taftax lana biha ababa rida wa taysir wa tuxliq anna biha ya allah ababa shar wa taasir wa taqdi lana biha ya allah jamia alxawais wa takuna lana biha ya allah waliyan waliyan fi dunia wal axira anta ya ilahi waliyuna fa niman mawla wa niman nasir inna allah malaika yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallallahu alayhi wa sallimu taslima